door salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan seen site internet su Lutte TV mbokk teg bànneex rek la ñu am saa su ne tey ñu seet si waat benn sampion rek jub su bés mais duñ ba def dara rek lu dul nuyu ko bàyyi ko mu nuyoo Gamou nuyu naa la woy maa ngi lay fay salaamaaleykum waa Lutte TV maa leen di nuyu di leen siyaar ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di sant uh, sama waa Ikiri waaw di sant waa Tëngéej di sant ñi may jàppale ñëpp waaw di sant samay entraîneur ku su ma ni performant Papa Yada laay boxeur Idi Babu Kale ax Bolo ñoom maa ngi leen di sant bu baax di sant mbëri Tëngéej yëpp waaw di wax si wari Tëngéej yëpp gis naa seen taxawaay quoi waaw niñ may jàppale maa ngi sant ñëpp daal. waaw nga jub si combat war a bëri Coly Faye 2 naka nga foo toll si préparation yi. waaw Coly Faye waaw combat bi mu taxawee ba léegi ñu ngi si daanaka bi mu taxawagulee sax ba léegi ñu ngi si combat bi ba ni combat bi taxawee waaw ñu ngi si kay préparé ak suñuy mbokk ak waa Tëngéej yëpp ak ñi may jàppale ñëpp ñu ngi koy préparé bu baax di ñaan yàlla nañ si yàlla may ndam waaw loolu la ñuy ñaan. est-ce xam nga ki ngay bëreel. waaw xam naa ki may bëreel bu baax a baax a baax a baax a baax xam naa Coly Faye bu baax. lu muy bëre. Coly moom lu muy bëre bari na moom xam nga moom champion moom lu muy bari na. ah lu muy bëre bëri na ndaanaan la champion la waaw mais damay ñaan yàlla ma yàlla may ndam si kawam rek. li koo ñor loolu la njëkk a wax. combat bi bu ko ñoree benn ñor na ma juróom combat bu fekkee da ñor benn man ñor na ma juróom combat bi man maa ko gën a soxlaa fuuf ah maa ko gën a soxlaa maa ko gën a bëgg. noo fas yéenee bëreeg xeex bëree wala ma fas yéenee bëree moom mais loolu du ma ko wax. loolu jouru làmba ji ngeen koy xam bu sooba yàlla ah jouru làmba ji ngeen xam li ma war a bëree moom ngeen koy xam. parce que moom nee na moom alaakulli aadama moom dalay attaqué. moo ko gën a sax dafa dem egg ci waat xeex ak yow moo ko gën ah, loolu la waaw maa ngi koy xaar bu fekkee xeex la bëgg moom daal lu mu bëgg rek bu sooba yàlla bu ñëwee dina ka fa fekk lu mu bëgg rek bu ñëwee dina ko fa fekk bu sooba yàlla préparé nañ lépp waaw. xam nga victoire fi mu la mën a yóbbu si sa carrière. victoire bi xam naa fi ma mën a yóbbu xam naa fi ma mën a yóbbu bu baax a baax a baax victoire bi bu ma ko daanee bu soobee yàlla damay yóbbu fi ma nekkoon si làmba dama koy romb sax waaw fi ma nekkoon si làmba dama koy romb bu soobee yàlla. moom nee nañ ne ñoom 4 avril seen bés la nee na ñoom ñoom ñoo moom 4 avril ngeen war a bëre jour indépendance. 4 avril ñi ko moom bari na de ñun 4 avril sunu mbër da ka daan bëre moo ko daan bëre sunu tëdd fil sunu tëdd fil ama ne moo daan bëre 4 avril bëre na ko benn budul ñaar. ah mais ren jii dafa yàlla dafa def rakkaam di ko bëre ak poulain am man poulain am laa rakkaam laa man maa koy bëre bu soobee yàlla di ñaan yàlla ma si yàlla may ndam. moom li mu jàpp mooy adversaire yi nga doon bëreel ak moom du benn dem na ba ne Pape Ndoye na ñun dañoo tudd Pape Ndoye tudd ko te du benn yéen ñaar nee na ñi daan ñëpp presque ñëpp bàyyi nañ. non loolu moom moom moo koy wax bu fekkoon man ñi ma daan ñëpp dañ bàyyi kon moom moom du ma jël may bëreex moom xam nga li ma la preuve ma def moom moo tax. moom mu jël ma di bëree man man dama jógee si defet après joge si defet après année balance bu fekkoon defuma dara si làmba moom du ma jël xam nga moom Pam Doy bi muy wax Pam Doy champion la ndaanaan la Pam Doy la ndaanaan la kenn mënu ko si làmba ji dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla may combat yàlla may ko si ndam Pam Doy champion la ndaanaan la billaahi. la te day man ñi ma daan ñi ma daan du Pam Doy rek. man treize combats laa bëre treize combats ñaari defet laa am ah ñaari defet laa am treize combats laa bëre ñaari defet laa am ah. ñi ma bëreel ñaata ñaata ñaata ñaata si bëre instant bi la wax. nee na nee na ñi si des daal di bëre bëreetul. ñi si des bëre bëreetul waaye moom loolu day wax rek moom day moom kii ka daan kii ma bëreel moom kii ka daan kii may bërel moom kii ka daan ah moom ki muy moom laa bëreel daawaati géej. moja moom kéwél moo ko daan man moja moom a daan ñoom ñaar lañ boole xam nga moom na rafet rek ni mu commencé woon ah nekk si dynamique dynamique boo xamante ne nii wax ju rafet lay waxaa comportement bu rafet naka continuer rek ba làmb jeex moo gën quoi. xeex bi mu lay woo te ñu gis ne yow yaa ko ëpp kaw moom si xeex bi mu lay woo est-ce que di nga ko ci wuyu. non man ëpp ma dara ëpp ma ko dara non surtout ma ko yéen yéenay wax lool rek man surtout ma ko non surtout ma ko de moom xam na ne surtout ma ah ëpp ma ko dara waaw ah, bu ñaar ñoo yem rek. mais xeex bi mu lay woo est-ce que di nga ko si kala moom man moom préparé nañ lépp préparé nañ lépp maa samay entraîneur waaw maa samay entraîneur préparé na lépp ku si mën ni Bolo Papa Yada ah performant ah ah Idi ah laay boxeur xam nga ah Babou Kale performant ñun préparé nañ lépp lu mu andi rek incha allahu rabbi dina ka fekk ah ñoom ama ngay bëre mbër boo xamante ne dafa bëri mbamboon nee moom mooy tarkindaa bu dañuy ruube jour combat est-ce que yaa ngi préparé ci loolu ndax bu avant combat mënuñu la destabilisé pour boo duggee si géew bi. bu ma duggee si géew bi waaw yow loolu kuy soog a bëre lañ koy def man ñaara combat laa bëre kooku manuma déstabiliser war na yàlla manuma déstabiliser tarkindaa bu ñuul la waaw ah, baax tarkindaa bu ñuul la man ñuul ma. waaye tarkindaa man du ma tarkindaa de man du tarkindaa de nan la ko yaa da waxee woon <laughs> Kalou Faye dama koy ñaanal. combat bii di ñëw combat combat am bii ba si toppa yàlla na ko yàlla may ndam loolu laa kay ñaanal combat bii nii ba si toppa yàlla na ko yàlla may ndam loolu laa bii nag bi mu jub si ni ak yow nag le avril le maa ko gën a soxlaa man maa ko gën a soxlaa fuuf waaw. yaa na ko nee na ba mu daw woon ko ginnaaw te moo la ama neex garaawam la moom dafa war jox ama neex ab cër est-ce que yaa ama neex garaam la da war a jox ab cër xam nga ama amul benn problème quoi moom na jàpp ama neex kon ni mu jàppee yeneen mbëri xam ne ni mu jàppee fëga la naka jàppee kon ama neex xam li ma la naka jàppee kon ama neex xam ne ama neex. non mën na nekk. ñooñu ñooy yow adversaire am nga. te bëgg-bëggam mooy bëri ak ama neex mooy bëri ak doomu dangu kon kay mënu ko yemal ak fëgal. non ama neex garaam la ama neex garaam na bàyyi ama neex ama neex la. waaw xam nga rek. mais lan ngay wax lan ngay wax si seytaane bi mu la a andil jour le 4 avril parce que nee na le 4 avril moom lim lay pareel est ce que di ko mën a sax yow lim waajal. kan moo ma andil seytaane. Ah, tarkindaa bu ñuul. waaw yow kooku dama mën a andil seytaane kooku kooku manuma andil seytaane. nee na dina andi kii tangaas de. non bu day sonal boppam rek bu ma andilee seytaane day sonal boppam rek. ah xamoo ma. mais ba léegi totoo ma si xeex bi parce que moom nee na moom ala kuli alin da xeex neen nee nañ ko gis nañ sa combat ak Pape xeex bi nee na xeex xeex bi mu soxla si yow est ce que le 4 avril yow loolu la yaa ngi koy sóoraale. man xam la bëgg ngeen xam ka man bëréew ma wax Pape rek beneen nii ngeen naan Pape Ndoye bàyyi leen Pape Ndoye fële. comme moom moo ne nga mujjee bëri. fële Pape Ndoye champion la ndaanaan la bàyyi leen Pape Ndoye fële wax leen ñeneen ñi ñeneen ñi non comme moom mooy victoire bi mujjee rek si boobu lañ mën a sukkandiku mais Koulibaly yi li nga koy waajal si xeex Tafaleer waaw Tafaleer waaw. Tafaleer mi muy àndal moom laa mujjee daan Tafaleer laa mujjee daan moom moo ñoom ñooy ànda. ñoom ñooy ànd. ñoom ñooy ànda daje naax ñoom entraînement. Ah. oui daje naax ñoom entraînement ñoom ñooy ànda fi ñuy entraîné si montagne bi fële. fekke nee ma foofu man kase ma àndaa suma benn booy ñoom ñoom ñu def groupe. lu fa am day romb ñëw nuyoo ma fay ña day ñëw na salaamaaleykum mbër ma ne salaama maaleykum salaam champion yi ñu romba dem man ma continuer entraînement yàggul kii moo tax sax ma arrêté dem foofu sama entraîneur bii moo na ma arrêté moo tax ma arrêté foofu mais dama doon dem foofu ah. ñu ko nar a ëmb andi ko Reug Reug ci bokk Siteu ci bi ñoom lu ñu mën rek ñu ngi koy def pour mu am ndam. dëgg la waaw loolu moom waaw loolu moom ñooñu yoon la ñu def loolu ñox moom ñooy ànda ñooñu nga wax noonu ñëpp ay champion lañ maa ngi tamit Siteu borom baax la maa ngi koy nuyuwaale bu baax li mu wax lépp dégg naa ko wax ju rafet la wax waa wax ju rafet la wax moom daal borom baax la daal foofu laa yem quoi si Siteu. yow noo koy waajalee ak mbokk yow combat bi. combat bi mu taxee ba léegi samay mbokkaan kay waajal ah nañ koy waajal ñun tamit ñu ngi koy waajal xam nga boo tënkee jëppaan koy waajal tënkee gépp ñëppaan koy waajal ñëppaa ngi si ku si nekk yaa ngi def li nga man ak li nga manul lan la wax. seetaanu ma ko de. lan <laughs> wax moom. xeex nga gënal. waaw moom bu ne xeex nga gënal. Coly Faye moom bu ne xeex nga gënal. mu ngi oo naar si guuxam soow. waaw mu ngi oo ab lëbu si si si bu ne kala moom. la waajal. man waajal naa ko lépp. bu andee bëre ñu bëre. bu andee xeex ñu xeex lu mu andi. moom xeex la waajal. waaw baax na. man loolu damay neex sax xeex boobu mu wax noonu moom damay neex xam nga la moo tax damay neex ah ñi ma daan bëral daa ñu xeexaax man moom bu ñëwee indi xeex loolu damay neex lu mu andi dina ka fi fekk. waaw waaw xool naa ka wax naa ka ka nee naa ka lu mu andi moom dina ka fi fekk ku li fay waaw. Lamine waaw di oo samay mbokk yëpp di oo mbokk yëpp di oo waa Tëngéej yëpp waaw di oo mbëri Tëngéej yëpp xam nga. di ñaanal tamit mbëri tëngeej yëpp ñi amul combat yal na leen yàlla may combat ñi am combat yal na leen yàlla may ndam yaa ngi dégg di sant suñu waa Ikri bu baax di sant Amaneex bu baax a baax a baax xam nga moom mooy suñu tëdd fil di sant samay entraîneur Papa Yada performant ah laay boxeur xam nga ah Bolo ah Idi ah Babu Kale di sant ñoom Papa Ndiaye ñoom ñëpp xam nga di sant doomu Dangu doomu Dangu maa ngi koy sant bu baax di jël. sant gi ma war a sant mbëri tënkee jëpp maa ngi koy jël teg si doomu loxo doomu dàngu mu siyaaral ma ko gaa di sant tamit Sococim Sococim maa ngi koy sant bu baax su ma mag ju baax la damay jàppale bu baax a baax. moom sax am na message bu ma wax si Sococim nee na Sococim dafa wàlliyaani nee na fi muy woote wu dëggu fa. waaw nee na loolu xëy na du gëm boppam affaire yooyu noonu sa. non daa uti ji woon xam-xam xam nga daa uti ji woon daa am lu mu uti ji woon daa uti ji woon xam-xam daanaka xam-xam bi am na fii sax mais dafa demoon uti ji xam-xam mais dina ñibbise bu déwénee bu soobee yàlla dina ñibbise fii ñëw nekk si ay rakkaam ay magam Sococim borom baax la xam nga <laughs> ba pare di oo oh, xoolal autorités yi nekk Tëngéej yëpp ñu ñëw jàpp si combat bi ku si mel ni Aline Mar xam nga ak ah, kii noo ay kii maître Bamar fay ah maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si combat bi Souleymane Ndoye xam nga Daouda Niang ah, di sant Seydina di sant Pathé Boy xam nga di sant kii. la Moussa Gueye Moussa maa ngi koy sant bu baax di sant Idda Sène Idda maa ngi koy sant di sant tamit Idda maa ngi koy sant bu baax xam nga di sant euh, kii ñoo tuddati oh. <laughs> non fàttawu ma ko rek xel bi moo xaw fattu rek xam nga rek gars yi foog nga foog nga waxaale ña quoi foog nga waxaale ña foog nga waxaale ña quoi di sant euh, fukki penc yee ñaar yëpp di sant fukki penc yee ñaar yëpp di sant waa Mbaaw waa mbaaw maa leen di santa bu baax ñu ñëw jàpp si combat bi aw ma seen fay di sant waa Bargny di sant waa Dangu di santa waa Jokkul gépp bàyyi ma kenn di sant sama staff waaw di sant sama staff ñi may jàppale ñëpp du ma lim nag mais maa ngi sant ñoom ñëpp di sant waa Touba guy gi bu baax a baax a baax di sant waa Igri Lebu gi bu baax di sant ñi may jàppale bu baax di ñaan yàlla na ma yàlla may ndam si kaw kolifay incha allahu rabbi